télé bi bégal sama askan TV Ladoum TV pour téléspectateur Ladoum ni si moo jël troisième place ak euh, deuxième place ñoom ay seex lañ nekk lañ ay xar rafet macha allah mu nekkoon seen premier édition Saldek tey jii ñii tey seen tur dootul mës fay ci élevage nekk nañu ay xar yu rafet macha allah nekk nañu ay xar yu extraordinaire macha allah kooku du ñëw mooy ki nga xam ni moo jël la première place nekk na añeel bu rafet tey jii turam dootul mës fay ci élevage kii tey turam dootul mës a fay ci élevage nekk nañu ay xar yu pare nekk nañu ay xar yu toog waaw macha allah ñu ngi noonu di joxe trophée ki nga xamante ni si moo jël deuxième place bi gannaaw bi ñu joxee trophée ki nga xam ni moo jël troisième place waaw bokk téléspectateur Ladoum TV kii nga xamante ni si tey moo jël la première place ñu ngi noonu ñu joxe trophée am allah nekk na lu rafet nekk na lu extraordinaire macha allah. ñu ngi noonu ñu di joxe li nga xam ni mooy trophée yi macha allah waaw mi ngi noonu ñii ñoo jël li nga xamante ni si ñooy catégorie añel waaw macha allah premier place bi deuxième troisième place bi ñu ngi noonu boo xoolee defal nañ leen ay décoration yu rafet macha allah fi nga xamante ni si mooy premier édition Saldek nekk na lu doy waar nekk na lu rafet macha allah macha allah mbokku téléspectateur Ladoum TV. TV. comme ni ngeen ko gisee tubaar fakal mi ngi nii lii rafet na tey jii ñii ñooy ñi nga xamante ni si ñoo jël catégorie añoo yi muy jeune mâle yi macha allah ñoom gannaaw bi nga xamante ni si nag ñoom kenn du leen natt dañuy jël li nga xamante ni si mooy seen i seen taar seen esthétique ñoom dañ leen doon dugal ci case de la vérité bi jury bi toog ñu leen di càmbar boo xoolee tey ki ma tuddee woon ki nga xam ne moom laa tuddee woon. le douzième gaynde waaw borom xar bi tuddee ko Sonko tey mi ngi ni moom moo ki nga xam ni moo jël la première place ci catégorie jeune mâle yi macha allah nekk na xar yu rafet war fa kàlla tey jii ki nga xam ni moo jël deuxième place bi moom tamit moom it euh, ci ci foire la juge ci podium la juge ñëw wàcc ñëwaat ci podium kon xam nga ni kooku tey turam dootul ma sa fay. ñii tey jii première place deuxième place troisième place catégorie jeune mâle catégorie agneau première édition Saldec version 2024 ñii seen tour dootul mës a fay ci élevage ñii tey kenn dootu leen fàtte ci élevage parce que liggéey nañ ci élevage liggéey bu rafet liggéey nañ ci élevage liggéey bu extraordinaire ànd ak télévision Ladoum TV nekk na lu doy waar nekk na lu rafet nekk na lu extraordinaire macha allah ànd ak seen télévision Ladoum waaw mbokk téléspectateur Ladoum TV bu ngeen xoolee tey ñi ngi décoré kii di Serigne Mangane bu ngeen xoolee tey ñu ngi koy décoré nekk na lu rafet waaw nekk na lu extraordinaire macha allah yéen a gisandoo loolu tey ji muy Serigne Mangane ñu ngi noonu di ko décorer macha allah xam nga ni lii kii nga xamante ni si ci élevage def ci liggéey liggéey bu rafet macha allah muy Serigne Mangane mi ngi noonu waaw def chemise bu rafet ah macha allah waaw yéen a ko gisandoo mbokk téléspectateur Ladoum TV premier édition Saldec mi ngi nii tey version 2024 mi ngi noonu ñu décorer ki nga xam ne mooy Serigne Mangane le grand champion sëriñ Mangane l'expert sëriñ Mangane la ndaanaan sëriñ Mangane bi nga xamante ni si macha allah liggéey na liggéey bu extraordinaire ci biir élevage tubaar fa kàlla macha allah tey jii mention spéciale parce que lu rafet lay liggéey ci élevage bi kii mooy sëriñ Mangane amin yaa rabal alamin ci ñaan yi ñu koy ñaanal macha allah macha allah ànd ak seen télévision Ladoum TV mooy suñu télé. waaw mi ngi noonu mbokku téléspectateur Ladoum TV muy la femelle la plus macha allah ci première édition Saldek mi ngi noonu ñu di ko décorer macha allah mu tudd faatu waaw nekk na xar bu rafet nekk na xar mu pare macha allah macha allah nekk na xar yu rafet ah nekk na xar yu rafet macha allah mu ngi nii nekk Fatou waaw mu nekk première édition première édition Saldek. nekk na lu lu rafet macha allah mbokk téléspectateur Ladoum TV waaw mi ngi noonu mbokk téléspectateur Ladoum TV mu nekkoon première édition Saldek euh, le mâle le plus beau la femelle la plus belle ñu ngi noonu ñuy décorer. macha allah nekk nañu ay xar yu rafet macha allah nekk nañu ay xar yu pare nekk nañu nekk nañu ay xar yu extra nekk nañu ay xar yu extra nekk nañu ay xar yu rafet macha allah tubaar fa kàlla mbokk téléspectateur Ladoum TV premier édition Saldek waaw lii nekk na ay xar yu rafet boo xoolee tey la femelle la plus belle le mâle le plus beau. ñoom la ñu indi ki nga xam ne tey mooy Diagne Modou moo indi ki nga xam ni mooy le mal le plus beau macha allah nekk na lu rafet nekk na lu extraordinaire mu nekk premier édition Saldek fi nga xamante ni si mooy terrain cité Sonatel ànd ak seen télévision Ladoum TV macha allah ca kaw ca kanam. waaw mi ngi noonu yéen a ko gisandoo tey ñi ngi noonu di di ki nga xam ne mooy Lune Mbaye macha allah nekk na lu rafet. nekk na lu extra boo xoolee tey lii nekk na lu nice quoi macha allah ànd ak seen télévision Ladoum TV. waaw mbokk téléspectateur Ladoum TV mi ngi noonu tey ñi ngi noonu di décorer ki nga xam ni mooy Ablaye Sow càmm ko ñor macha allah waaw nekk na lu rafet nekk na lu lu lu macha allah bu ngeen xoolee lii image bi image bu rafet la bu ngeen xoolee lii macha allah ñi ñëpp. ay éleveur lañ càmm rek a leen ñor macha allah ànd ak seen télévision Ladoum TV. waaw mi ngi noonu mbokk téléspectateur Ladoum TV bu ngeen xoolee tey. mooy ñi nga xamante ni si seen tur dootul mës a fay ci élevage ñi ngi nii ay femelle espoir lañ ñu jël ki nga xam ne mooy premier place deuxième place troisième place ci premier édition Saldec nekk nañu ay xar yu rafet nekk nañu ay xar yu pare nekk nañu ay xar yu toog ay femelle espoir yu rafet macha allah ñu ngi noonu ñu décorer leen jox leen li nga xamante ni si mooy seen trophée ànd ak seen télévision Ladoum TV nekk na lu rafet macha allah nekk na xar yu extra macha allah. ànd ak seen télévision laadum TV xool leen lii nu mu rafetee xool leen lii nu mu yànjee xool leen lii nu mu paree xam nga ni daal ku yokkul da ngaa wàññi waaye élevage yokk nañu. mi ngi noonu mbokku téléspectateur Ladoum TV gis nga affaire yi nu mu rafetee ñi ñooy ñi nga xamante ni si mooy Mâle Espoir yi mu nekkoon première édition Saldec version 2024 boo leen xoolee tey. xar yi rafet nañu kii nga xam ne moo jël première place moom yàgg naa toog dafa toog ci trophée bay doog a génnaat tey ji yéegaat na ci podium macha allah tey ji ndam lii nga xamante ni si mooy ndamu parcelle la mi ngi noonu xar bi nga xam ne parcelle la jógee waaw sama xarit sama doomu ndey muy Adama Sène mi ngi noonu moom moo ko défilé macha allah waaye ñi ngi ànd ak ki nga xamante ni si mooy Diagne Modou ak Modou Dramé macha allah mi ngi noonu nekk nañu ay xar yu rafet mbokk téléspectateur Ladoum TV nekk na première édition Saldek Roxo version 2024 macha allah xar rafet nañu tubaar fakalla waaw mi ngi noonu mbokk téléspectateur Ladoum TV yéen a gisandoo ki nga xamante ni si mooy Djiby Yade moom lañ jël ci ki nga xamante ni si mooy box bi nga xamante ni si moo gën a rafet. moom la gars yi gën a bàyyi xel ci biir première édition Saldek version 2024 ànd ak seen télévision Ladoum TV xoolal lii nu mu rafetee tubaar fakkaal la xoolal lii nu mu yànjee xoolal lii nu mu paree xoolal lii nu mu toogee macha allah xam ngeen ni kii di Djiby Yade mi ngi liggéey ci élevage liggéey bu extra liggéey na liggéey bu pare liggéey bu rafet macha allah. boo xoolee euh, bëgguñu woon génnaat trop tôt uh-huh. parce que dañoo jóge woon si ay foire yu bari donc uh-huh. tegale ay foire yu mais ba ngeen ñëwee wax ak moom après par la suite mënu leen woon gàntu quoi. dëgg la donc par la suite après si lañ exposé. Uh-huh. te xamoon naa ni lay demee ah. xamoon naa ni lay demee parce que. Uh-huh. Euh, comme gars yi wax rek. Uh-huh. femelle bi daa yor yat bu paree jox feneen femelle bi yat bi. Ah. waaw caw caw rek. moom gars yi bu yàgg kii instant bi te incha allah rabi ah bële passé ay euh, ay sëtu ñoo ñëw. bii ay ña ñett doomu maxu ñëw ñaar ñi ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñaar ñëpp classé. macha allah donc mun naa ne ay ay ay ay sujet purement Ladoum SN la. macha allah donc euh, xam naa ni Ladoum SN aussi ñu ngi koy xaar ñu ngi xaar fu sori. macha allah te incha rab rabbi xam nañ yoon bi. Uh-huh. te aussi euh, xam nañ lu ñu fay yóbbu. ñu ngi si aussi. macha allah donc di ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla jàpp si rek parce que li lépp yàlla la. waaw damaa gis sa petit temps ma gis sa xol sedd rongo ñu di waaye ñëw lan la yëg-yëg bi la wala. non boo liggéeyee. Uh-huh. boo liggéeyee ba ba ba affaire bi ba comme par exemple boo boo boo jiwee sa garab. Uh-huh. ba mu am ay fruits. Uh-huh. nga ko nga jël fruits di ko utiliser xam ni lii yow yaa ko liggéey. foog sa xol féex. donc tey loolu bokk na si li nga xamante ni tey bokk na si li ñu kontaan loo. te aussi tamit. Euh, di ko di ko di ko sant moom aussi parce que aussi tey mun naa ne euh, am na am na am na am na yu bëri yoo comme lu ma ko waxee woon foire Thiès bi rek am na yu bëri yoo xam man mus man mun naa ne bergerie yu mag yu nekk si Sénégal yëpp mun naa ne yoo si jaarul bariwul donc ab bergerie yu bëri nekk naa si uh-huh. donc euh, considération bi ma am ak moom mun naa ne aw ma ko si bergerie yu bëri nii nii nii nii boo xoolee mun naa ne uh-huh. ça fait des semaines uh-huh. man kese maa nekk si bergerie bi te bergerie bi euh, ay centaine de million moo si nekk donc mun naa ne loolu confiance la te confiance boobu noonu euh, mun naa ne aw ma aw ma lu ma ko koy fayee confiance boobu kase kase kase taxi aussi euh, mën naa ne foire bi yëpp. bu bu fi ñëwee bu nekkee ñëw na fi. Euh, li fi ñëw yoo xam ne fekkee moo ko bii mooy deuxième fois. confiance la aussi mu jël say millions yu bari. ah jox la ko uh-huh. am confiance si yow. Uh-huh. donc euh, contrôler wu la. Uh-huh. donc ngay gérer. moom mu si kontaan te bu bëggee dala kay wax loolu moo si loolu moo gën a am si moo gën a am solo si affaire yi. waaw bon. ba pare aussi di wax aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy liggéeyloo booy ñu leen ñu gën leen jox aussi seen gëdd parce que fanaan si box métti na du fanaan si box kase xar bu judee timis wallaay la azim lu des si guddi gi yëpp duñ nelaw billaay wallaay dangay ngay nekk si mbote bi di nàmpal bañ nga yaaji dëgg ko bañ nga kuy bi kuy bi jaag jéggi si kawam doo nelaw te wallaay azim ñu bëri dañ dañuy yor ñoo xam dañ leen di liggéeyal du ñu xam loolu wallaay la azim te da ngay xool da ñoo xamante ni dañuy yor xar dañuy yoral nit xaram seen famille sax pour ñu teg leen bët day jafe ba si man mii sama famille mënu ma kañ laa leen kañ laa leen gëj bët mais xam nañ aussi uh-huh. si lan laa nekk. waaw mi ngi noonu mi ngi noonu ñu décorer ki nga xamante ni si mooy suñu suñu naataango ki nga xamante ni si mooy le reporter sans frontière di Djiby Kandje macha allah nekk na lu doy waar nekk na lu extraordinaire xool leen ko mi ngi noonu. mi ngi noonu oh macha allah oh waaw ñu ngi noonu ja maanaam alaaji gay ngi nii moom tamit càmm rek ko ñor moom it mi ngi noonu ñu décorer ko nekk na lu lu rafet macha allah bu xoolee li waaw mbokku téléspectateur Ladoum TV yéen a gisandoo ñii ñooy ñi nga xamante ni si ñooy champion Saldek ñii ñooy ñi nga xamante ni si ñoom ñoo jël li nga xamante ni si mooy. Euh, euh, première édition Saldek ñii tey ñoom seen tur kenn dootu ko mës a fàtte ci élevage parce que nekk nañu ay xar yu pare nekk nañu ay xar yu rafet macha allah ñii seen tur dootu mës a fay parce que man maa jël premier édition Saldek man maa jël premier édition boo xamante ni si juróomi association ñoo organisé juróomi association ñoo taxawal lu mel ni man maa ko jël kon ñoom ñii seen tur dootul mës a fay. seen tour dootul mës a fay ci élevage nekk na lu rafet nekk na lu extraordinaire di am ngërëm ak contentement di jëfal ñi nga xamante ni si ñooy membre organisateur yi macha allah tey jii 10 jours de foire nekk na foire bu rafet 10 jours yi nga xamante ni si lépp la ñu def macha allah nekk na lu rafet ñu organiser lu mel nii man maa yëg podium loolu rek. doy na waar loolu rek ndam la ànd ak seen télévision Ladoum TV di leen jox di daje nag ci yeneen yeneen édition yi ñëw macha allah Ladoum TV nag mi ngi liggéey liggéey bu extraordinaire ànd ak suñu caméraman bi nga xamante ni si macha allah lu mu cadré wul baaxul suñu monteur bi di Bousso moom it lu mu monté wul baaxul ki nga xamante ni si tamit mooy l'incontournable ki nga xam ne mooy Jibi Kanji moom it tey mu liggéey ci Ladoum TV nekk liggéey bu rafet liggéey bu extraordinaire Jibi tey lan ngay. tëjee sa dernier mu ak euh, Saladek bi. waaw suul ah mais xanaa kontaan rek am satisfaction liggéey moom saa bu taxawee waar la woo xamante ni rek danga koy engagé léegi nag lay ndamal ku ne mooy euh, la nga am ca waar nga bay ko sa kem kàttan ñu yàlla dimbalee ñu am groupe bu ñu bokk. ñu liggéey ci liggéey bu toll ni wax dëgg yàlla bi décoration jotee dañoo ñoo décorer seppi ñu ci biir mbooloo mi gis liggéey boo xamante ne def nañ ko ñu rafetlu ko lool loolu moom mënuñu def lu dul sant ci yàlla bu baax a baax a sant ci euh, suñuy waajur waaye gërëm ci ñi nga xamante ne ñoom lañ ci àndaloon ndax nit yàgg naa ànd nit muy def effort di góor góorlu nga gis ko ba pare teg ci sa tànk comme Saldek bu ñu defee li ñu mel wala ñu def li lu ni mel ah ñu def lu dul vraiment sant leen gërëm leen tey ñaan yàlla nag mu nekk ay édition wi édition wi édition incha allah. merci beaucoup jërëjëf am na solo loolu mooy kàddu ki nga xamante ni si mooy jibi Kandji macha allah nekk Ladoum TV nag di ci bay waaram di ci liggéey liggéey bu rafet liggéey bu doy waar liggéey bu am solo macha allah. lii moo nekkoon tey li nga xam ni mooy dixième journée bi di tëj foire bi nga xamante ni si mooy premier édition Saldec fii nga xamante ni si mooy terrain cité Sonatel ànd ak seen télévision Ladoum TV jërë ngeen jëf. mooy télé bi bégal sama askan